bëgg a garder nag sa temps bëgg temps bu rafet bu amul benn picc da ngay ñëw fii jënd si savon yi am na jiw bopp aussi pour ñi leen ñoo xam ni dañuy manqué karaw ku si bëgg karaw nag ba am chevelure dangay ñëw fii nga jël si jiw bopp yi jël si savon yi loolu ay conseils yi